xam ne ñun sa njaboot gi nga yar jàngal leen ñoo la ñaanal benn bés bu nu moom nga di fa daje ak ñun ñuy tëgg ci yow nga dinu jox suñu programme annuel ma ni ko du mën a fenn te kenn du la fa mën a remplacer mu tax bi mu ñëwee te nekkee fii ñu ko manitu muy bés boo xam ne nag dañu ñaan defe ko fii ci kër jëmb ndax taalibe yi nga xam ne yar nga leen jàngal leen orienté leen seen jiitu ci alaaji Njaase ñu ñaan la di ko def fii bés bi ëpp na bésu alaaji Njaase xam ngeen ko nun njabootam noo ko ko ñaan ñu ko année bu jot bëgg nañu gis loo xam ne da ngay daje ñun ñi nga yar jàngal leen nga jox ñu suñu programme annuel orienté ñu ñu topp ko di ko suivre ba déwénati nu dajee te nga wax ni li nu war a def nu continuer ndax li nu fas yéene moo di di nu nekk njaboot buy fétal toujours njaboot buy tënku la doon di topp programme di topp orientation ak directive yi mu jox at mu jot nag fii lañ koy joxe ñu dajawaat fi pour dégluwaat loolu mu mel ne kon nag li am solo moo di ngeen ubbi seen nopp taataan seeni xol euh, lu mu tracé rek mu jaar foofu ba ba ñu dellu seeti déwén yal nañ ko teewe mu ne ci nii la bu nii la rek lu ñu noonu la waaw xanaa su ma mbubb mi li muy weex weex ku ñu woon dafa ñuul dama naan dafa ñuul moom moo am gis-gis waaye ñun duñu am gis-gis moom mooy am programme mais ñun duñu am programme moom mooy tracé waaye ñun duñu tracé su ko defee nag kon dajeeti nañ fi yàlla nañ fi yàgg daje moom itam mu yàgg fee teew déglu ko ak sunu nopp taataan ko sunu xol lu mënul tracer ñu jàpp ci jaba bañ koy gis ndax tabarakallahu yombul am kilifa mu mën la tracer te la mën a tracer ci sa njëriñ rawatina nag loo xam ni mag wax na ci ñaan ca mu di Sëriñ Babacar moo ma ni woon wax naa ko ni ko lu mu xalaatati ci kër gi na ko doxal ñaxalal naa ko ci it yàlla loolu nag muy wéy ba faaw te booba gouverneur Lamine ngi toog mu wax ko ni waxtaan naa ak moom ak Lamine mii jox naa ko ordre lu mu xalaat ci kër gi na ko doxal may naa ko ci ndigal ñaanal naa ko ci yàlla looloo tax ñu di ko jàppale xama nga demee kon nag mu dajati fi pour taataan déglu orientation yi ñu jox ak directive yi su fi jógee ñu gudd ko topp kenn ko nekk ci ñun ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balu ak sëriñ bi ñëpp ñëw nañu taalibe xarit yeeg njaboot yi ñëw nañu suñu benn doomu bàyyi nga nële di doomu sëriñ cene ba mu yabal ci ko mu ñëw teew ci kilifa yi ci des nag yow yaa leen di wax ñu nawet loolu lañ ci amoon lu ñu doon wax pour ngeen déglu ànd ak dal ànd ak teg ba mu wax lu ñuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey jii tabaarakallah fay na ko benn gërëm yàlla yàlla kontaan loo leen sëriñ bi nu ngi lay jotal ay ngërëmam ak i coonoom ci wàll bi di la jotalit wax dëgg yàlla coono président de la république ci mbir mili ndax bañ room tam waa Juba ñu ngi leen di sant di leen tàkkul ak ñaan di ñaanal yàlla ñi nga xam ne wax dëgg yàlla bu dee ci wàll dox bu dee ci wàlli wax bu dee ci wàlli kër këri bu dee ci wàllu coono ndax ñii ko fi def tey yépp ginnaaw yàlla ñoo ko fi def ñooñu ñooy sunuy doomi bopp yi nga xam ni Muhammad Mustafa si moo ne ca biir te njiit njiit la ci ginnaaw yàlla ànd na magam ju baax jële te mooy al mustarshidin wal mustarshidat wax dëgg yàlla def na ci mbir def nañ ci mbir mi loo xam ni nook ñoom ak yàlla noo ko xam nook ñoom ak yàlla noo ko xam waaye wax dëgg yàlla lépp luy rafetal ci wàll bu nekk wala jëf wala wax wala jox lu leen ca war dañu ni mag ñi nañu toog nun noo koy defal suñu bopp am naa loolu sax moo tax wax dëgg ñoom jaral ñu ñoo defal daal benn motion ñaan boo xam ni tey nag insha allahu nu koy def ndax na nañu suñu bopp bii wéer suñu kaaba bi ca miiru kaaba yàlla ga jël rido yàlla ba rido rido kaaba yàlla ga muuroo ko ñaanal almustarsidiina wal mustarsidaat ñu leen ñaan yéen ko yàlla ñu di ñaanal it waa kër jëmb ñi nga xam ne ginnaaw yàlla ak kër baara kay rek dëkk yi di wër ak jubaas yépp nag eh, di la xawalit ni si lii ñu eh, ngi ñaan li alaaji Malick Mbay sama mag ju baax jii may wax ci lam ñam waxam alaaji Malick Mbay noonu la fi benn bés ñii dund bépp na ñi dee bépp nañu ñii dund bépp na ñi dee bépp nañu bu nu fàttalikoo góor gii tey fii nga nekk fala néegam tollu woon te da daan jëm ci waawoon jële ca maa ngi fàttaliku benn benn tawassul bu mu ca jële woon suñu jàngee suñu barke alquran ba mu mokk mu ne doom na ngeen jàng da na ngeen jàng xasiida bi ndax am na njëriñ xasiida ba nit nit taalibee ko weer al Khalifa di ca wax arif ni ya aba bakrin habibi arif ni ya xalifatu min karubi وأحسنت الخلافة يا حبيبي عن الممنوع يا منجي الكئيب أتاك الخلق بعد الأب حقا ألوفا بل وفودا كالشكوب فأنت القطب يا مير البرايا ويا قوت القلوب لدى الأريب نجاك الله من كيد الحسود وفم سوء مع كل الخطوب أطال أطال العمر من يحيي الرقاة وفق الجيل من غير التعوب ولد كذا المنصور وعبد العزيز ولا ننسى المسمى بالحبيب هم السادات هذا الدين صادوا بهم تحيا طريقتنا اللذيذ بني موكل لولو أما بنو ديزان تكن كنا سمو كل كنا القرآن مصالحة لولا تواس بمضان سرين باو كرسي رب لا تلعن يا كارناني وحدك يلا يلا من كوسطرال تبركم يتبيه تجمع جتبي جي توفي ndax sëriñ Cheikh Fall daana fi ñëw sëriñ Aliou Fall daana fi ñëw sëriñ Bay Sall daana fi ñëw waaye nag jëmm ci sant si waxuma la nag barakallahu ah alhamdulilah rabbil alamin wax dëgg yàlla kon daal barakallahu daal foofu laa ci mën kon nag si ñu ngi lay xamal ne suñu xol sedd na seral nga ba nu cat yàlla yàlla seral waaye kat dañu wasalu la nit mu yàlla jox sangu ñi yenu ndam Cheikh Abdul Qadir Jilani di sunu waajur yii fi nekk di waxe itam turu sunu way jur wii nekk fii ci Tuuba te di sunu kilifa di wax nag ci turu seen magum daara mu di Cheikh El Hadj Aziz Dabakh di wax itam ci turu sunu mbokk yi nekk ci ak tariqatu laayiniya muy sunu mbokki laayeen yi ndax ñoo moom daara ji ku wax ci daara ji te waxuloo ci seen tur yàq nga wax ba mel ni kon nag ñoo moom daje bi seen barke fi nekk seen lamiñe fi nekk seen njàng fi nekk seen alluwa fi nekk seen njaboot fi nekk te kat barke mën na lu doole mënul barke waaw maanaam barke mën na lu doole mënul mu mel ni kon nag seen kaddoo fi nekk seen barke fi nekk seen ndonoo fi nekk lu mat a xam la ndax dëkk lu réew mi am ku ko xam xam na ko ku ko xamul itam war na ko jéem xam ndax ndono lu am solo la bu loolu paasee nag itam nu ngi toog ak sunu kilifa yi bopp tey sunu mbokk yi bopp ñaar ñu ngi fi nekk ci biir gouvernement bi nekk ay ministre di jàppale président Abdou Diouf kii ci sama ndeyjoor mooy sunu doomu najaay papa moo soxna astukan seen ñaari maam ya bokk ndey ak baay muy Cheikh Hamidou Kane bii toog bu am jom waxuma la nag aji gëm ju am jom waaw ba ko yéeféer bu am jom nga ànd ak yàlla du tax nga song ko daaneel ko lu dul danga nekk aji gëm ju am jom jom baax na waaw mu mel na président yi tam boole nañu ak Cheikh Saad bu Diouf moo di gouverneur région bu bees bi di xarit ci Serigne Abdoul Aziz Dabakh te Serigne Abdou kuy xaritam suñu xarit nga mi ngi ànd ak ñi mu war a ànd ñëpp tabarkalli ci autorité yi ah mi ngi ànd itam ak suñu jarbaatu bopp bi mu di Christian Valentin mi ngi toog ndax ñoo Sëriñ Babacar bokk ca Ndar moo ma ni wutal ma avocat famille wutal ma avocat famille ma ni ko kenn nga ci am mu ni ma kan ma ni ko entrenière mu ni ma wax kay doy na ma sëkk waaw lu ma ci famille bi te bëggul ku ko xam mu jox ma ko ma jox ko ko mu lijjanti ko te ma sàmb du ci bopp ma dem du ci bopp famille boobu la ñuy doxal tabarkalla tabarkalla ak suñu wëllëre yi ceet yi ci nekk député nekk maire nekk ku am yitte taxaw ci politique taxaw ci syndicat taxaw ci daara taxaw ci jàkka taxaw ci jàng taxaw ci defar taxaw ci baax la ñépp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam sëriñ Abdu wax na xaaji Njaay wax na ni mu waxe ku nekk mën na ko dégg tabarkalla yàlla na yàgg su mel na bëccëg la nag boo xam ne xat na wante suñu doon gisee kenn ku ne ni moroomam yàlla na nga dund doy na ah dafa am borom te lu am borom nag da ngay seet ka ko moom baat bi tax nu di ko doxal tabarkalla ñi ko moom yeyoon na ci ñoom ñu doxal seen baat ci jamono ndax sunu mbokk bu gaañu yàgg na te nekkoon ci rajo bi ñu di ko wax alu alu mu yaboon ma lool ci jam ak waxtaan ak cax la ni ma dafa lu ma la bëgga laaj ma ne ko lan la mu ni ma Sëriñ Babacar Si ragal na yàlla wala ragalul yàlla ma ni ko ah, wóor ko duma duggul ci xolam te ragal yàlla ci xol lay nekk ma ne lenn daal laa ko mën a waxal mooy mag mu yiw la mag mu yiw la mag mu yiw nag boo seqeeg moom baat baat ba te doxal yiw téere yi ak piri yi dafa am lu ko ëpp doole mooy namm namm yàlla moo tax Isa bnu Maryam wax ni yàlla diggal na sama xeet aljanna waaye ku ci dekk itam sa loxo jëmbatal xam ne àjjana jotagul yan si yàlla Muhammad wax ni yàlla dig na sama xeet aljanna waaye ku ci dekki amee caru tàndarma jëmbatal booba aljanna jotagul waaye li dàq aljanna nag dàq dekki ci teraanga la ko dàq mooy wóolu yàlla am na koo xam ni dinga ko wóolu ba boo yendoo këram boo añul it sa yoon nekku ci rek la demee lu mel ni président wàcc na tabarkàlla li ko war yépp def na ko kilifaam yu baax yëpp teew nañu li mu man def na ko adduna nag dafa metti te dafa xat ku sàkku lu bare am lu tuuti noonu la demee walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fi yàlla ne li ngeen ma ñaan yëpp yomb na ma bu ma ko joxee loo benn yoon ngeen bew yéen waaw moo tax dama koy joxe ci wàllu xikma danaa fexe ba ngeen wartu danaa fexe ba ngeen añ danaa fexe ba ngeen naan waaye bew nag ba kenn du la mën a jariñoo du ca fekk lu ma ta bàyyi xel ak ki ñu jox lépp mu dee bàyyi ko fi lu mu ko doon jëriñ lu mu ko doon jëriñ ki ñu jox lépp mu dee bàyyi ko fi lu mu ko doon jëriñ yonent bi bi muy laata xar-xarle pour wuy ji dafa ni sayidatuna Aysa lu fi des mu ni ko nangam mu ni ko sarxe ko mu génn ci jikko jigéen ni bu nu ko sarxee du nu am lu nu dunde mu toog ba mu yàgg am lu mu yëg woo ba mu ñëw mu nu ko limani nañu ko sarxe ndax sarxe nga ko wax ko ko bu dëgër mu di diital mu nu ko na ko sarxe bu ma yóbbu fu ma neexul te yéen jigéen yéen a ngi dëgër bopp wallahi ndeysaan waaw waxin wa waxini doomu bàjjan la mu ni ko inna kunna axawaatu yuusuf mu ni ko coono ba jigéen ña tegoon yonent yàlla yuusuf ba ñu tëj ko kaso jigéen ñooña yéene di seen mbokk de waaw waaye fekk na du ay bi jigéen gu jigéen li mu nangu dafa bari kon it fokk yàlla am fu ko jaarale la waykat ba wax ni bu ma addoo ñu tiit bu ñu lamsalee ma tiit <laughs> ah pexe amul ah ne la bu ma waaye ñoom àdd du leen ca fekk dañuy lamsal rek man ma xam bu yàgg bu ko defee ci seen barke jàmm mën na ci am ki nga bokkal diine jàmm mën na am ki nga bokkalul diine jàmm mën na am ki nga bokkal tariqa jàmm mën na am ki nga bokkalul tariqa jàmm mën na am ku ngeen di xëccool yàlla wala seen bopp bu tey yàlla yàlla xëccoowul alaaji Maodo si la bii toog di ilimaan ca Ndakaaru maa ko ni loo yëg rek suñu mbokku catholique yi def dem ca monseigneur Thiandoum ñu di ko def cardinal muy ñibbi si ma ni teraanga ñëpp la woo doomu Serigne Babacar si ni ko demal ba ci biir église ba ndokkeel ko waaw ba tax na jàmm jàngi fi de jógu waaw jàmm jàngi fi jógu fi tabarkalla tabarkalla yàlla dinu ko boole yombul na nu ko jël alaloo ko jariñoo ko def ko muy sunu ndono waaw te di ci bàyyi xel mel ni kon nag sunu bokk yi fi daje di ay ilimaan sunu bokk yi fi daje di ay sëriñ sunu bokk yi fi daje tey président yi daayira sunu bokk yi fi daje tey wëllëre di xarit amee seeni métier amee seeni responsabilité di góor ba ak jigéen ba mag ma ak ndaw la ndax xale yu tuuti Sëriñ Babacar ngi ci feebaram ci mujju dundam xale yu tuuti jël seen kaar jóge Ndakaaru ñii fukki at ñii juróom ñett seen yaay yaa ngi leen dogal ay robb yu weex solal leen gants yu weex ñu dugg ca kaara ya di sikkar góor gi ñu ni ko mënuloo sax jóg bu baax fi mu ne waaye taxawal gis ñii mu jóg dox bu nànk ba tiim leen kenn ëpp ci fukki at mu ne ah, lii de junj la ñooña ñu ñu jur ñooy mursalisiin ak ba tax na loolu alal la lu ci ko sàmm lu ci bàyyi xel abadan abadan abadan abidin waaw di nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp bésu barke la tabarkal la bésu barke la yàlla ko dogal rek alalu jàmbur la itam waaw moo tax mu ñeme ko alalu jàmbur la moo tax moo tax ñu ñeme ko waaw ndax cheikh dafa def téeréem tudde ko wurus cheikh alxaaji omar tudd eh, eh, defar téeréem tudde ko xeet xeey ñu ne ko lu tax mu ngi wurus bu ko xeej sàmmul mu sànku ñu boole ñaari téere ya móol ko cheikh ca penku di nit ku weex cheikh alxaaji omar ci sow di nit ku ñuul ñu boole seen ñaari téere ya mool ko xam ni ñoo bokk ndono waaw bis boobu nag bu ñu ko amee nu daje njaboot yi daje jant metti kenn yëgu poussière bari kenn yëgu fa tabaarakallaahu boo toogoon ñaari fan xiif doo ko yëg yàlla xam na ko wëllëre noonu lay mel fa tabaarakallaahu kon nag nu di leen yóbbante ci président biir ngërëm dina nu di waxtaan ak moom ci mbiri àdduna lu ne la nuy waxtaan ak moom lu ne lu ne moom xam na ko ñun xam nañu ko bu nu sañoon yépp nekk jàmm ñépp nekk ci jàmm liggéey lay doon nag liggéey lay doon ndax euh, Sëriñ Babacar Si nee na innamal mu'minuuna ixwatun bari na ku ko wax te déggloo ko nee na xabar objectif la waaw da nga cay jëm bala noo bokkoo rek sox ko wax ko waral daje bi nag daje daara la Serigne Abdou wax na dëgg nee na daje daara piir la nu di fi daje waxante fi ay baat ku ne fas boo demee di ko nattanteeg xaqaayiq yi bëgg noonu la de la nekk te mag ñi it juubuñu ba moo tax mu dellu ci ni ñu ko daan defe ni ñu ko daan defe mooy lépp nag lépp nag muhammad moo ko moom lépp lépp muhammad moo ko moom te gis nga yàlla daf ko wax ci alquran moom muhammad ni ko kilifa mënul ñàkk kon ko royal ibrahim moo tax ko amul kilifa juum nga waaw ku amul moo wax ibrahim moo wax yonent bi ni ko moo di sa laqad kaana lakum iswatun xasanatun fi ibrahim moo jiitu laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana muhammad ñu xolloo ko ibrahim jullit yi ñu xolloo leen muhammad moo tax ku amul kilifa rek juum nga àll wa àggu ca alal aggu ca dëgër bopp aggu ca yeewu ca aggu ca Muhammad Ibrahim mooy modèle waaw ëpp naa xeeb euh, mu nangu ko lool yiw ca lool woyofal ko lool bu àdduna dalee ci kawam ba mu sonn ba sonn ba saabi moom yonent bi mu jékki-jékki rek sukk dal di wax ni yàlla yàlla nga yéew Muusa lañu ko teg teguñu ma fukkeel ba muy gore rek waaw kon ku ne am nga koral ah rahimallahu Moussa moom la daan wax wallaay te sonnee la koy wax rahimallahu Moussa buñ ko dàqee dem kër najaay ja ñu dàq ko dëkkatoo fi yi nga indi xamuñu ko xale bu toll ni yow juddookuloo di ñu génn ci suñu yàllee xeer yii sa yaram neexul waaw dàq ko waaw gajj ko sànni ko doj yaram wi nàcc mu sukk rek ndax wax ni rahimallahu Muusa teg nañ ko lu ëpp lii mu koray rek moo tax ku ne am nga koral waaw ku nekk am nga koray mat na bàyyi xel nag waxuñu ni kenn ku ne am nga koo par parloo dañu ni kenn ku ne am nga koo rey ñu wenn de waaw koy jaawale rek waaw ñu ni jullit bu ko dégg dégginu dëgg-dëgg di nga dem ba yàlla def ci yow ni baykat di def ci gugg suuna wu ko waroon dañu jullit bu ko dégg te jëfandikoo ko dëgg-dëgg di dem ba yàlla jëfandiku ci yow ni jëfandiku baykat bu gubu suuna warul da muy jëfanteeg gubu suuna wa yàlla dana dem ba jëfante yow baykat bu ba noppi taal gisul dara jël dugub def ci suuf tollul yàlla déggoog moom taw lëf ka génn yàlla sàmm ko ba gunóor lekk ko mu mucc ci nawet ba xëy di xale lu góor peppam fen bi tëfanaxul gattax ba jekk te dammul baykat ba jikki ba tàkkusaan mu ngelaw li mu ñëw janoog euh, euh, euh, diggante am na luy nekk ci xolam waaye yàlla it dana bàyyi jullit mu mu judd xet dox xam waru garam mu topp ko ba bëccëg mu bëgg ci moom lu raw na baykat ba bëgg ci gubam woon waaw dana di am muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع axraja shab'ahu fa aajarahu fastaxlafa fastawa ala suuqihi yujibu zurra li yagiba bihim loo ci mën loo ci mën ñu ni ko yàlla seetaan bi ngay seetaan sa gub wii ba nga ko bayee ba noppi ñu di ko tudde jullit lu tax nga bëgg mu ne mer mi ki juba di mer tey moo ma bëggloo waaw mer mi ki juba di mer ci kii ndax nit bu melee na mu war a mer ci wàllu borom képp ku juba di bañ moo tax diine tudd ko moo gën a yomb nga dégg ko waaw ndax tey yàlla wax yonent bi ni ko xoolal Ibrahim muy sa modèle wax jullit yi xool leen Muhammad muy seen modèle ëpp na jullit ëpp na asaka waaye melo wa nag yooyoo koy barkeel wax ji ku ko moom ouvrier bi ca atelier moo ko moom fonctionnaire bi ca bureau moo ko moom chef politique bi ca njabootam moo ko moom syndicaliste yi bi ca ay bokkam moo ko moom ilimaan bi ca jàkkaam moo ko moom sëriñ ba ca daaraam moo ko moom boo defee ni rekk dafa am ñu mu war wacc la xamuloo na nga toll ci yàlla waaw ñépp ko moom ba ci jigéen ji ci waañ wi moo ko moom ba ci jigéen ji ca rabbukaay ba moo ko moom ba ci jigéen ba ca tabaxukaayu ndaala moo ko moom ba ci jigéen ja ca bureau ba moo ko moom ba ci jigéen ja ca école ba di jàngale moo ko moom ba ca jigéen ja ca section politique ya di defar moo ko moom ñépp ko moom ku ci génne sa bopp rek xamuloo lu xew mhm. ba doon lu ma ta bàyyi xel la ndax gëm yàlla rek mooy yombal jubóo gëm yàlla rek mooy yombal juboo waaw bi nu xamee tubaab nag la ñuy tëral charte soog a juboo ba nu xamagul tubaab dañuy juboo ba noppi ba ñëpp miinante ñu soog a tëral charte waaye di juboo tëral charte du ma ko nangu nañu def li virgule bi point bi nangam nangam ngëm des waaw julli ca julli ngëm des na ku bëgg a jubóog sa mbokk yàlla ngay indi bu jubóo ba amee bu ngeen àndandoo julli weer àndandoo euh, waxtaan weer àndandoo jàng turu yàlla weer lu ngeen tëralati mu jur waaye wóoluwuma de dañu bind de charte nangam charte nangam yàlla téye boppam waaw du def tawfiq du def leer te bu tawfiq amul leer amul dara du jàpp waaw mu mel ni kon nag lu ma ta bàyyi xel méthode yi baax nag méthode yi ngay topp di jëf ba baax dugg yàlla indi na ko yépp ci alquran ñett la bu jëkk bi amul illa bu jëkk bi amul illa am na nag comparaison am na ko guddi gi yàlla bi yonent bi rañaanee yàlla invité ko mu dem fekki kooku amul illa kooku amul illa mbaax gu ñu rafleel la kenn du ko àtte fenn duñ ko tëral ci benn loi duñ ko tëral ci dara mbaax duñu rafle la amul illa amul amul jaam bu gont boromam ni ko kaay la mu ko waral